jàngee na jëf ci topp gi def na ko boucler ndax daal juge bi li mu àtte mooy bàyyi nañ Serigne Khadim mu dellu ca daaraam Dete Njaañ kon nag askan waa ngi tàmbalee buub seen i kaaka ngir di ñibbi ñu ne bàyyi nañ Serigne Khadim waaye xam ngeen nag bàyyi gi dañ koy bàyyi rek mu ànd ak mbooloo mi ñibbi am na sax ñu doon revendiquer loolu waaye dañu leen bu ca loolu mënta nekk kon daal Serigne Khadim ci lu leer lu officiel euh, juge bi bàyyi na ko day dellu incha allah ca daaraam Dete euh, Njaañ kon ndam amatina loolu nag moo waral gaa ñi daal kontaan di wane seen mbégte ak seenu sigéré kon daal nee ñu Serigne Khadim bàyyees na ko day dellu tey jii incha allah ca daaraam jëca njaañ day dellu rek ñu jëmmal ko ci ay këyit incha allah loolu daal la ñu xam le juge bi daal li moo dogal te atte ko mooy daal Serigne Khadim na dellu jàngale ji ca daaraam euh, jëca njaañ kon nag euh, na leer nañ daal ni euh, ndam amatina ñeel waa lislaam kon Serigne Khadim ñu ne day dellu ca daram jëca si jàpp daal mooy eh, tey moom dispositif bu am solo jëm ci wàllu police eh, wàcc si woon na fi ba nga xam ne dafa cadre tribunal bi ba kenn mënul accès bi xawoon na jafe tuuti tuuti dañ ko doon filtré bu baax mais tribunal bi daal loolu la joxe ci bi nga xam ne moo concerné affaire xale yi nga xam ne dañ leen doon jéng fële ci Njaañ chef naa bi ak ñi nga xam ne jot nañ leen jàpp muy juróom ñu juróom ci ñoom muy juróom benn ci ñëpp ñoom ñëpp libre nañu ñaari avocat lañ leen daan te duñ ko tëdd avec sursis politique bi daal lan mooy réaction foofu lay ca tribunal bi. waaw jamono ji am na ñu ñëwoon ci saal benn benn août de soulagement lañ def waaye nag jamono ji dañuy xaar ñi nga xam ne mooy avocat wu Cheikhouna Gaye ñu génn war a def ab déclaration jëm ci li nga xam ne jot na fe am. waaye liñ ci mën a jàpp tamit mooy juge bi balaa moo joxe délibéré bi wax la ne li ñaawlu na acte yi nga xam ne amoon na fii mercredi bi passé mooy le vingt sept novembre ba ñu jot a toj ay vitres yi nga xam ne moo nekk ci óolu entrée tribunal bi mhm. mu ne yoon moom ñëpp la fi nekkal amul ko pauvre amul ku ku far fenn wala dara dañuy wax yoon nuñ ko war a waxee te duñ ci xool dara nag te yooyu noonu ajotoon te am xëy na yoon dina ci dugal loxoom bu baax ba su waree am ay poursuite dinañ ko def te duñ ci xool dara nag mhm. en euh, jëm nag ci sëriñu daara bi ñu jàppale woon moom ak yeneen juróomi nit acte bi daan na verdict bi kon tribunal daan ñoom ñëpp ñaari atu kaso yoo xam duñ ko tëdd maanaam duñ ko tëdd. waaw El Hadj Diop Dieng ni nga waxee noonu la tribunal daf leen daan ñaari asukaso ak sursis maanaam duñ ko tëdd ginnaaw bi ñu sukkandikoo ci taarixu réew mi yenn ci spécialiste yi wane nañu ne diggante woy daara yi ak gouvernement bi li ñu waroo moo ëpp loola li ñu juboo ànd ak loolu ñenn ci ñoom di xamle ne mbir mi weesu na sax fi ko ñenn ñi di natt ndax jàpp dañ ne ab jàmmaar loola gu amoon ci diggante pouvoir temporel ak pouvoir spirituel li ko fësal nag mooy taxawaay goo xamante ne ñaar ñi am nañ ko yoon ne moom du dellu ginnaaw ci mbir mi way daare yi ne ñoom yi itam na dañuy artu yoon di ko xam la ne bés bu ko defee ñoom dinañ am beneen taxawaay bu ñu ràññee bu ñu sukkandikoo ci yenn xalaatkat yi ñoom ñaari kuréel yi doon xëccoo ku ci nekk ci ñoom ñaar am na loo am ci mbir mi waaye am na itam loo ci ñàkk mu mel ni yoon mi waxoon na du dellu ginnaaw ci mbir mi dëggal na boppam ci taxawal gu mu taxawal procès bi ak àtte gu mu àtte sëriñ daara bi di sëriñ Xaadim géey donte wuy daara yi ñu ngi leen doon ërtal ak di leen artu waaye bu ñu ko saytoo ba ci biir mel na ni woy daara yi itam am nañu ndam ci li ñu bëggoon donte ca bés ba bàyyiwuñ sëriñ Xaadim Guèye mu delluwaat ca lam nekkoon nekk li nga xamante ne ñoom moom lañ doon sàkku yoon daan bi ñu teg euh, sëriñ daara bi di sëriñ Xaadim Gueye uute na lool ak daan yi ñu ko xamee woon ci képp ku ñu jàppoon ci mbir mu ni mel bu ñu nee ñaari at lañ ko daan yoo xamante ne ñaari weer képp la ci tëdd kaso mu mel ni dellu nañ ci ginnaaw ndaxte képp ku ñu musaane jàpp ci wàllu métital doomu aadama daan nañ la teg lu gën a sa lii la ñu teg mu mel ni kon ñaari weer dong lañ ko daan ndax la ca des daf koy delluwaate ca lam nekkoon mu mel ni woon bunt buntab tribunal bi ñu doon àttee Serigne Khadim Gueye am na lu mu wàññi ci way àtteekat yooyu la donte mbir mi jeexagul ba tey ndax Serigne Khadim Gueye ñu ngi ko téye ba léegi ci yoon te ñi faree ci moom ay ñoñam du ñu sàkk sàkkuwuñu lu dul ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee mu delluwaat ca liggéeyam am na nag ay gis-gis ak ay bunt yu yaatu yu ñu tijj ci mbir mi ñenn ñi jàpp ne ab palang dong la woon ngir mën a fàtteloo sénégalais yi bépp xew-xew bu xewoon ci nguur gi te ñépp ñaawlu ko lu ci mel ni jàpp gu ñu jàpp ab député bu sës rëkk ci président de la république muy Seydina Fall Bougazali ci wàllum phobie ak njuuj njaaj ak artu gu xalif général des Tidianes amaloon ci kanamu ministre de l'intérieur di ko xamle ne nañu jóg ci mbirumu góor jigéen yi ak ñiy jaay seen bopp ñenn ñi di xamle ne fay gu ñu bëggoon a fay wax jooju doon jëm kaw te arrangé wul woon nguur gi ci gis-gisu ñi nekk ci bitim réew taxoon ñu indi mbir mi lal ko ngir yëngal sénégalais yi penc mi ñeneen ñi jàpp ne lu waroon a am la ndax jot na nag ñu daal di réglementé lépp lu jëm ci wàllu njàng ak njàngalem alquran dem sax bay wax ne lii kat ab bunt bu tijjeeku la ci diggante nguur gi ak ñëpp ñi ngànk wàllum njàngalem alquran bi ngir ñu waxtaan ba indi ci ay saafara yu mucc ay anala lan nag mooy seen gis-gis yéen ci mbir mi ak fan la mbir mi di mujjee dañ ci dellu si waat jërë ngeen jëf